Sëriñ Baara Dieng Sëriñ Baara jeng mi ngi feeñ jamono ci atum 1923 ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor di doomu soxna Xari Moodu Jaxate ak kii di Sëriñ Ma Yaasin Ummi Dieng moom bi mu feeñee jamono Sëriñ Baara Dieng ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ci atum 1923 Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko tudde boppam mu bokk nag ci turandooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke yi moom Sëriñ Baara jeng am na nag ñum bokkal nag kii di Xari Moodu Jaxate ak kii di Sëriñ Ma Yacine Oumy Dieng ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Sophie Dieng bintu soxna xari Moodu Jaxate bintu sëriñ ma Yacine Oumy Dieng ak moom sëriñ Baara Dieng ibnu soxna xari Moodu Jaxate ibnu sëriñ ma Yacine Oumy Dieng ba tey nag am na ñeneen ñu mbokkal soxna xari Moodu Jaxate te bokkuñu na kii di sëriñ ma Yacine Oumy Dieng muy ku ñuy wax soxna Assu Géey bintu soxna xari Moodu Jaxate bintu sëriñ Cheikh ma Baabu Géey sëriñ Moodu xari Géey ibnu soxna xari Moodu Jaxate ibnu sëriñ Cheikh ma Baabu Géey ñaari jëmm yooyu ñu leen tuddal ñook sëriñ Baara Dieng nag ñoo bokk waajur wu jigéen waaye bokkuñu waajur wu góor ndax soxna xari Moodu Jaxate mi laataa muy ñëw ci loxoy sëriñ ma yaasin ummi jang kii di sëriñ cheikh ma baabu géey moo ko dëkkoo woon bi sëriñ cheikh ma baabu géey génnee àdduna nag lañ ko jébbal nag sëriñ ma yaasin ummi jeng lool moo waral nag ñaari bant yooyu nag bokk kii di sëriñ baara jeng kii di soxna xari Moodu Jaxate bokkuñu sëriñ ma yaasin ummi jeng ginnaaw bu fi sëriñ ma yaasin ummi jeng bàyyi koo nag ba Mor Anta Sali Mbàkke mu am ca nag ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Mbàkke ibnu soxna xari Moodu Jaxate ibnu sëriñ Cheikh Coro Mbàkke njaboot googu ñu leen limal nag ñoo bokk kii di sëriñ Baara Jeng nag waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy ñetti doomu aadama yum bokkulul waajur wu góor ak kenn kum bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy soxna Sofi Jeng moom sëriñ Baara Jeng nag bi matee dal nag lii di alxuraanul karim nijaayam ju ñuy wax sëriñ Abdourahman Jaxate lañ Ousmane Jaxate nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko ba bind nag lii di kaamil bi ba tàmbalee jàng sax nag lii di xam-xam lépp itam ci loxoy nijaayam jooju nag la ko nekk waaye nag laata nag muy pare nag ci njàngum nag lii di xam-xam waajuram sëriñ ma yaasin ummi jag nag génn na àdduna mu jógee nag ci loxoy nijaayam sëriñ Abdourahmane Jaxate ñëw nag ci Touba jaayanteeg na kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag mi nekkoon xalifa sëriñ Touba Xaadim Rasuul ma wax leen sax keroog bi Mamadul Moustapha Mbacke lañ waxante ñoom ñaar moom sëriñ Baara Jang ak kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ginnaaw bu mu dul ci loxoy cheikh Mamadul Moustapha Mbacke jébbal ko boppam cheikh Mamadul Moustapha Mbacke mi ngi ko doon wax nag yow akan mu di ko xamal ne mën a sëriñ Baara Jang doomu sëriñ ma Yaasin Umi Jeng mi mu fayee nag cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sa rakk cheikh Mamadul Moustapha Mbacke doon laaj sëriñ Baara Jang lan moo nekkoon say tànk mu di ko xamal ne sëriñ ma Yaasin Umi Jeng moo nekkoon sama waajur te moom gisatuma ko te xam ne itim nag ab sëriñ war moo tax nag ma jóge fi ma nekkoon nag ñëw fas yéene jaayanteeg yow nag ngir am nag lépp loo xam ne nii sama waajur wa sëriñ ma yaasin umu jëng am na ko cheikh mu moustapha mbàkke nag mi ngi ko doon xamal ne yow de mbokkum mu dul bachir mbàkke nga te man kat damaa warlonte woon ak cheikh mamadul bachir mbàkke wala damaa fas yéene woon sama digganteeg cheikh mamadul bachir mbàkke lépp loo xam ne nii mbokkum cheikh mamadul bachir mbàkke la su ñëwee nag ma jébbalaat ko cheikh mu mu dul kooko féeteeg cheikh mamadul bachir mbàkke sëriñ amal kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko wax ne daal yow laa bëgg jaayanteel ci wax jooju nag kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke nag woolu woon na nag kii di cheikh mamadul basiir mbàkke di ko xamal ne sëriñ baara jëng mi sa mbokk la te man kat dama fas yéene képp koo xam ne nii jege na la ci wàllu mbokk ma bàyyi koog yaw waaye nag kii di baara jëng nag mi ngi may xamal ne man mii nag la fas yéene jébbal boppam ginnaaw bu cheikh mamadul moustapha mbàkke waxee loolu nag cheikh mamadul basiir mbàkke sëriñ baara jëng nag dëggalaat na lam waxoon cheikh mamadul moustapha mbàkke ci kanamu cheikh Mamadou Bassir Mbacke Cheikh dul Bassir Mbacke nag di xamal nag kii di Cheikh mu Moustapha Mbacke di ko wax ne jébbal naa la nag kii di Serigne baara Dieng ndax mu nekk ci yow ak mu nekk ci man benn la kon nag lii moo waral kii di Serigne baara Dieng nekk nag ci loxoy Cheikh mu safaa Mbacke ba tax na kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam laajoon na nag lan mooy bëgg-bëggub sëriñ baara Dieng mu di ko xamal ne sama waajur wa Serigne ma Yacine Oumy Dieng daa liggéeyal sa waajur wa ba am li mu am moo tax itam man itam dama bëgg fas yéene laa am nag la sama waajur wa am loolu moo waral nag kii di sëriñ Baara Dieng nag des nag ci daaray cheikh Mamadul Moustapha Mbacke yi doon muritu nag ci loxoy cheikh Mamadul Moustapha Mbacke wéel na nag ci loxoy cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ba ni fi cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bàyyi ko mi ngi ci daaray cheikh Mamadul Moustapha Mbacke yi bi cheikh Mamadul Moustapha Mbacke génnee àdduna ci atum 1945 sëriñ cheikh Mbacke gaynde fan ma toog toogaayu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke sëriñ Baara Dieng nag daa wéel nag nekk nag ci loxoy sëriñ cheikh Mbacke gaynde fan ma jébbal ko boppam bi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag moo jox ngërëm nag kii di sëriñ Baara Dieng ginnaaw bu mu ko gërëmee ba noppi nag la ko yabalaat nag ci Cheikh Mamadou Bachir Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag mi ngi doon xamal sëriñ Baara Dieng naka soo demee nag ba wax lii nag kii di sëriñ Bachiru Mbacke lum la wax nag nang ko def ginnaaw bu sëriñ Baara Dieng ñëwee nag ba ci Cheikh Mamadou Bachir Mbacke wax ko nag lii ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wax Cheikh Mamadou Bachir nag moo ko jébbalaat nag ñaareelu xalifa sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng ba di sëriñ Bachiru Dieng di ko wax ne nag demal ci sa loxoy mag nag sëriñ Bachir Bassirou Dieng ci dëkk boobu mu nekk nag di daaru waxa nekk itam ci buntu mbar loolu moo waral nag bi sëriñ Baara Dieng jotee ngërëm ci loxoy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba dem ci Cheikh Mamadou Bassir Cheikh Mamadou Bassir nag jébbal ko magam nag di sëriñ Bassirou Dieng mu wéy nag nekk nag ci loxoy sëriñ Bassirou Dieng ba ni mu toogee xalifa sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng ci atum waaye sëriñ Baara Dieng nag daana wax ne moom dafa nuroog waajuram sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng ndax sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng bi sëriñ moor ma jeng faaloo génn àdduna mu jël léppam jébbal xaadim rasul moom itam nag bi mu jàngee nag ba noppi wala laataa muy jàng ba noppi la waajuram nag sëriñ ma yaasin ummi jang génn àdduna moom itam nag mu jébbal léppam cheikh mamadul moustapha mbàkke ba tax na daana wax ne fi waajuram jaar dong nag la jaar ginnaaw bu mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di daaru waxaam ñu gën koo xam ci buntu mbar taalibe yim njëkk am nag te taalibe yooyu nag jaayanteeg moom Baara Dieng taalibe yooyu nag ñu mën caa ràññee taalibe bu ñuy wax sëriñ Jibril Fall di doomu sëriñ Ibrahima Fall bokkoon nag ci mag ñi toppoon sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng ak ku ñuy wax sëriñ Mortala Mbay ñaari taalibe yii nag la sëriñ Baara Dieng nag njëkk a am ginnaaw bu mu jotee ngërëm nag ci loxoy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu wéy nag ànd ak taalibe yooyu nag toppitim nag ci ginnaaw magam di sëriñ Basiiru Dieng moom sëriñ Baara Dieng nag ko amoon ak jaxasoo la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ndax ginnaaw boom noppee gis waajuram wa sëriñ ma Yaasin boppam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke mi toogoon toogaayu xaadim rasuul ginnaaw bu mu jébbalee boppam cheikh mamadul moustapha mbàkke ba noppi ci daaray cheikh mamadul moustapha mbàkke itam la nekkoon di liggéeyal cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir am kat la waajuram wa awoon di sëriñ ma yaasin ummi jang ba tax na itam ci daaray cheikh mamadul moustapha mbàkke itam nag la jotee ngërëm loolu itam tax na tudd na ataawam nag kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke ak njabootam itam nag bàyyi na leen nag ñu wéy nag nekk itam ci kër googu nag di daarul xuddoos ba tey relation yi cheikh mahamadul baara jang amoon ñu man cee ràññee itam digganteem ak cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool ndax kii du cheikh mamadul basir mbàkke nijaay la ci sëriñ baara jëng loolu itam taxoon na kii du cheikh mamadul basir mbàkke moo jébbal sëriñ baara jëng kii du cheikh mamadul moustapha mbàkke ndax bi sëriñ baara jëng di doog a jébbalu ci cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke da doon xamal kii di sëriñ baara jëng di ko wax ne lii di njabootuk cheikh mamadul basir wala ay mbokkam dama leen a bëgg a bàyyeeg cheikh mamadul mu ci waxtaanee ak jàng ba noppi sëriñ Bara Dieng daal doon na xamal kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko wax ne daal dama bëgg a jébbulu jaayanteeg yow ginnaaw bi nag kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke woolu na cheikh Mamadou Bassir Mbacke di ko wax nag lii ko sëriñ Bara Dieng wax ca booba nag la cheikh Mamadou Bassir Mbacke jébbal sëriñ Bara Dieng kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko wax ne ñaari cër yi benn la loolu itam tax na kii di cheikh dul Bassir mbakke ku fonkoon kii di sëriñ Bara Dieng la ba tax na itam nag kii di sëriñ Bara tudd na doom kii di cheikh Mamadou Bassir Mbacke te cheikh moo ko yóbbu nag ci dëkk boobu nag di daaru waxaab ginnaaw bu mu jotee ngërëm nag ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma jébbal ko magam ja di ñaareelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jeng di sëriñ basiiru jeng ba tax na ci loxoy sëriñ basiiru jeng nag la nekk ba ni sëriñ basiiru jeng génne àdduna ci dëkk boobu nag di daaru waxaab ñu gën koo xam ci buntu mbar ba tey sëriñ baara jeng ko amoon ak relation la ak sëriñ touba cheikh abdoulahat mbàkke ba tax na mook sëriñ touba cheikh abdoulahat mbàkke jaxasoo woon nañ lool lool lool ba tax na kii di sëriñ baara jeng nag tudde na doom nag kii di sëriñ touba cheikh Abdou Lahad Mbacke Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul ci Mbacke Kajoor googu la Serigne Baara Dieng feeñe jamono ba tax na Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moo ko tudde boppam tudde ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ndax moom bokk na ci turandooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke yi Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Baara Dieng la ba tax na daana ñëw buntu mbar googu ñu gën koo xam ci daaru waxaab daa fa si nag kii di Serigne Baara Dieng Serigne Baara Dieng itim Serigne Touba Cheikh na laaj sëriñ Baara Dieng loolu itam nag taxoon na sëriñ Baara Dieng tudde na doom na kii di sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul ku jaxasoo woon nag kii di sëriñ Baara Dieng la ba tax na sëriñ Baara Dieng tudde na ko doom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo jox ngërëm nag kii di sëriñ Baara Dieng ndax bi sëriñ Baara Dieng jaayanteeg mu Mamadou Moustapha Mbacke daa wéy nag nekk nag ci daaray Cheikh mu mu dul ba ni Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke génnee àdduna kii di sëriñ Baara Dieng nag jotul ngërëmam bi ma toogee toogaayu cheikh mamadul moustapha mbàkke la gërëm na kii di sëriñ baara jeng ba tax na kii di sëriñ baara jeng nag tudde na doom itam nag kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu ñu gën koo xam ci sëriñ moodu busa jeng ko jaxasoo woon ak nijaayam jiina nag di sëriñ baara jeng ndax sëriñ baara jeng ak soxna busa jeng bi meññ sëriñ moodu busa jeng ñoo bokk sëriñ ma yaasin ummi jeng ba tax na kii di sëriñ baara jeng nijaayu sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu la loolu itam tax na tudde woon na doom jarbaatam boobu nag di sëriñ moodu busa jeng te sëriñ moodu Busa Jeng tim na woon nijaayam jooju la di sëriñ Baara Jeng sëriñ Mbàkke Madina ibnu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke wala réew sëriñ Baara Jeng la woon ba tax na kii di sëriñ Baara Jeng tudde woon na doom kii di sëriñ Mbàkke Madina wala tudde na doom kii di sëriñ Mbàkke Madina ganeen njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku ci sëriñ Baara Jeng tuddewul doom sàkku woon na itam nag ci njabootuk boppam di leen wax ne ku ci am doom laataa nga koy tudde nag la soob ma may nag ma tudde ko doomu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul gi xam ne nii tudde doom ba tax na képp kuy njabootuk sëriñ tubaa xaadim rasul moo xam ngay góor wala ngay jigéen te sëriñ baara jëng tuddewu la doomam fob na itim nag ci doomi doomam yi tudde la doom ndax bëgg ak cofeel nag gum amoon nag ci xaadim rasool rawatina itam nag njaboot gi fi xaadim rasool bàyyi ba tey ci relation yi sëriñ Baara Dieng amoon kii di soxna Awa Dieng di doomu sëriñ Baara Dieng jébbaloon na ko sëriñ Cheikh Fat Silla Ndiaye ba tax na sëriñ Cheikh Fat Silla Ndiaye nag am na ci njaboot ñu man cee ràññee ku ñuy wax maam Cheikh Ibrahima faal Ndiaye ba tey doomu sëriñ Baara Dieng bii ñuy wax soxna Ndey Dieng sëriñ Baara Dieng jébbaloon na ko sëriñ Souhaïbou Fall moom sëriñ Modou moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiina ba tax na sëriñ soxna Ndey Dieng mi ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall ak maam Cheikh Fall soxna Ami Dieng moom sëriñ Baara Dieng sëriñ Baara Dieng jébbaloon na ko ku ñuy wax sëriñ Cheikh Jaxate moom sëriñ Mawlul Jaxate ba tey ci relation yi sëriñ Baara Dieng amoon kii di sëriñ Moodu Abdoulaye Mbacke imam di doomu sëriñ Moodu Moustapha Mbacke Basiiru yoroon na doomu sëriñ Baara Dieng wala yor na doomu sëriñ Baara Dieng bu ñuy wax soxna maam Faati Dieng ba tey sëriñ na dëkkoo woon nag doomu sëriñ Omar Mbacke gelongal gu ñuy wax soxna maam Penda Mbacke ba tey relation yi sëriñ Baara Jeng amoon nag mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasoul ñu mën cee ràññee sëriñ Mbay Fàlloo Njaay kii di sëriñ Baara Jeng na doomam ju ñuy wax soxna Loota ba tax na am na ci njaboot muy ku ñuy wax soxna ba tey relation yi sëriñ Baara Jeng amoon ak mag ñi toppoon nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasoul ku ñuy wax sëriñ Muudu Gulal Jaxate sëriñ Baara Jeng yoroon na doomam ju ñuy wax soxna Busa Jaxate ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ñu sëriñ baara jeng jaxasoo loon ba tax na mag ñoo ñëpp itam daanañ ko xoole sëriñ ma yaasin ummi jeng ak turandoom wa nag di cheikh mamadou lamine baara mbàkke mu nekk nag ku yaatu ku ubbeeku ku fonk ñëpp nag ngir jëmmi sëriñ tubaa xaadim rasool ji ba tax na nag bi ko cheikh mamadul bachir mbàkke booleeg magam nag sëriñ basiru jeng ci dëkk boobu nag di daaru waxaab ñu gën koo xam ci buntu mbar mu nekk nag ci loxoy nag magam nag sëriñ basiru jeng di ko xoole nag sëriñ ma yaasin ummi jeng di ko liggéeyal bañ koo def mag nag def ko sëriñ lépp loo xam ne nii sëriñ Basiiru Jeng daana ko sant nag njabootu sëriñ ma yaasin ummi jang yi rakkam ji nag di sëriñ baara jang itam mucc ci woon sëriñ baara jang itam nag jàppe woon na sëriñ Basiiru Jeng nag kii di sëriñ ma yaasin ummi jang ba tax na itam ni mu liggéeye la sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ak waajuram wa Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke noonu itam nag ni la tarbiyoo nag kii di sëriñ Basiiru Jeng ci ndigal nag lu ko Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke jébbaloon wala ci boole gu leen Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul boole woon mu wéy nag sax nag ci loxoy magam nag sëriñ Basiiru Dieng ba na sëriñ Basiiru Dieng génnee àdduna mu jël nag léppam nag jébbal nag ñetteelu xalifa sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng di sëriñ Moustapha di ko xoole nag nu raw nam doon xoole magam ja sëriñ Basiiru Dieng moom itam nag def kom nag sëriñ ma Yaasin Ummi ba tax na lépp lu mu waroon a defal waajuram wa defal na ko nag magam jooju nag di sëriñ Moustapha Dieng ba na bàyyi ko mu jël léppam nag jébbal ñeenteelu xalifa sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng di sëriñ Saam Dieng di ko xoole nag nu raw nam doon xoole sëriñ Moustapha Dieng ak kii di sëriñ Basiiru Dieng def ko soob sëriñ bañ koo def makka benn sëriñ saam jeng nag génnee àdduna ci atum 1998 mu ñëw nag nekk nag juróomeelu xalifa sëriñ ma yaasin ummi jeng moom sëriñ baara jeng dajale nag mbooleem njabootuk sëriñ ma yaasin ummi jeng gi ndax kat moom la njaboot gi léegi nag di xoole kii di sëriñ ma yaasin ummi jeng mu wuuf njaboot gi yërëm leen te yiir leen lépp loo xam ne nii ay magam nag daanañ ko def mu wéyal loola nag ndax jëmmi sëriñ ma yaasin ummi jeng yeneen rakkam yi nga xam ne nii moo leen mag nag ci ëttub sëriñ ma yaasin ummi jeng ji mu def def leen ay rakk ba tey itam nag di leen xoole sëriñ ma yaasin ummi jëng taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy taalibey sëriñ ma yaasin ummi jëng yi di bootu nag ci këru njabootu sëriñ ma mu leen di xoole sëriñ ma yaasin ummi jëng lu ci waay soxla mu nekk yitteem lu ci waay bëggitim nag mu def ko yitteem ba tax na kii di sëriñ baara jëng nag liggéey na liggéey bu am solo ci toogaayu nag gi mu toog nag toogaayu sëriñ ma yaasin ummi jëng dundalaat dëkk boobu nag di daaru waxaab ñu gën koo xam ci buntu mbar ndax foofu kat la ko ay magam dëël foofu ba ni mu génnee àdduna ci atum 2008 mu dundalaat nag lii itam nag di màggaluk sëriñ ma yaasin ummi jeng gi ba tax na bépp doomu sëriñ ma yaasin ummi jeng wala sëtub sëriñ ma yaasin ummi jeng sëriñ baara jeng daana la xoole sëriñ ma yaasin ummi jeng saa bu la waree digal dana la digal saa bu la waree tere dana la tere ndax kat moom mooy sàmm bi sàmm jamono ji nag njabootuk sëriñ ma yaasin ummi jeng bi ci lool nag la sax ba ni mu génnee àdduna ci atum 2008 mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daaru waxaam ñu gën koo xam ci buntu mbar di di jàng jàng di jàngale comme kan ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee ba tax na ñu baree baree bare baree baree bari sëriñ Baara Jeng nag defar na leen nag ba ñuy defaree ndax xam na ne kat lool dong moo ko war loolu itam nag la donn nag ci magam te loolu itam nag la jàng nag ci daaray mu Mamadou Moustapha Mbacké yi ba tax na daal kii di sëriñ Baara Jeng gàcce ngalaama nag lañ koy wax bi mu jénnee àdduna nag ci atum 2008 sëriñ Abdul Xafoor Jeng moo ko wuutu nag ci toogaayu sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng nekk nag juróom Dieng doomu soxna xari Moodu Jaxate ji ak sëriñ ma Yaasin Ummi Dieng ñu gën koo xam ci sëriñ Baara Dieng mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëraloon ci hôpital bu jéemul ñu gën koo xam ci hôpital sëriñ Mbàkke Madina ci bisub alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1429 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1429 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 3 juillet ci atum 2008 ju 3 juillet ci atum 2008 ginnaaw bu mu génn génnee àdduna moom sëriñ baara jeng sëriñ muntaxa mbàkke ibnu cheikh mamadul basir mbakke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ca wetu waajuróom wa sëriñ ma yaasin ummi jeng moom sëriñ baara jeng nag ay xalifaam nag nii la tëddee kam fayee woon cheikh mamadul mustapha mbàkke di sëriñam moo ko njëkk a wuutu ci atum 2008 ba nëgëni ñu koy wax sëriñ mustapha jeng ibnu cheikh mamadul baara jeng moom sëriñ mustapha jeng nag ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu yàgg nag ci toogaayu waajuróom wow nag di cheikh mamadul lamin baara jeng ak mbooleem nag ñi mu séqal nag sëriñ Baara Jeng moo xam góor ak jigéen yàlla na suñ boroom teg loxo nag te sàmm te aar leen ci darajay seen waajur wa ak seen maam ja sëriñ ma yaasin ummi jeng sëriñ baar Jeng nag am na bis nag bu buñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal wala am na ab bis nag bu ñu ko daa fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu di bis bi mu génnoon àdduna daanañ ko ci fàttaliku nag ci dëkk boobu nag ñu ko dëeloon di daaru waxaapa ñu gën koo xam nag ci buntu mbar ci bëccëgu ñaar fukki fan ak nag ci weer wi nag di rakkaat nag bis boobu sababu bàyyi bis boobu nag mooy ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu ci la ñuy fàttaliku nag turandoo sëriñ baara jeng wa du cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke borom kàdd gi baneen sabab bi mooy màggalug waajuram di sëriñ ma yaasin ummi jeng soriwul ñaar fukki fan ak juróom ñett nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu te njaboot gi itam nag ñaari bis yooy nag doon na indi nag ak gàllankoor nag ci màggalug sëriñ baara jeng ginnaaw bu ci sëriñ moustapha jeng mi toog toogaayu sëriñ baara jeng waxtaane njabootuk sëriñ baara jeng gi yi bàyyi nañ bis boobu nag di ñaar fukki fan ak juróom-ñett nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm di ko jàpp nag saa buñ ci waxtaanee ba juboo waaye màggal gi nag ñu ngi koy sukkandiku ci ginnaaw buñ màggalee waa juróom sëriñ ma yaasin ummi jang ba noppi màggalal turandoom ma mamadou lamine baara mbàkke ci mbàkke kajoor ginnaaw buñ màggalee ñaari màggal yooyu ba noppi nag la ñuy doog jàpp nag bis bu ñuy fàttaliku sëriñ baara jang nag ci dëkk bi nga xam ni ci lañ ko dëeloon di daaru waxaapa ñu gën koo xam ci buntu mbar ñuy ñaanal doomu sëriñ ma yaasin ummi jang ba di sëriñ baara jang turandoo cheikh mamadul lamin baara mbàkke wa yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey sëriñ ma yaasin ummi jang mi waajur